mënu ji nag mu bokk ci responsable politique APR yi nga xam ne moo gën a fës ci Touba soxna Mame Say Mbacké demoon ca Soura fekk ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee ñëw ànd ak soxna Mame Say Mbacké jox ñu liggéey ngir falaat njiitu réew mi. nga fas yéene ànd ak soxna Say liggéey mu jàppale ma ci sama mbooloo ndax loolu rek laa bëgg sama koñ bii ndax dañoo ànd ak man di yéeg ak a wàcc ñuy liggéey te gisuma ci sama bopp boobu ba léegi léegi nag loolu moo tax ma ñëw ci soxna Mame Say ànd ak moom pour ñu liggéey. ginnaaw loola itam kenn ci jigéen ñoo ñee di xam le ne ñoom fa ñu nekkoon ay jafe-jafe rek lañ ci doon jànkonteel waaye bi ñu gisee fulla fayda gi nga xam ne soxna si di soxna Mame say Mbacké moom la àndal ak Pastef gi liggéey réewam ci la ñu bàyyi lépp ñëw ànd ak moom sëñ Fallou Mbacké dama caa gisu sama bopp loolu tax ma ba ko waaw nax yi dañ cee sonn financé wu ma ci gisuma ci sama bopp looloo tax ma bàyyi. foofee ñu nekk ci suura bari na ay jafe-jafe yoo xam ne jigéen ñi nekk foofee ñu ngi koy jànkonteel rawti nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wàllu liggéey. waaw am nañu jafe-jafe bu baax xeetu jafe-jafe yi am su otoy màggal gi ñëwee vidange duñ ci am moyens yu bari daal amuñu ci. léegi nag loolu nag lañ bëgg mu mu dañ yet amuñu ci moo tax ñu bëgg ñëw ci soxna maam say mu jàppale ñu ci jigéen ñaa ngi nii bëgg a liggéey amuñuy bale nekk di waas jën ak a xool ne loolu nag laa yi nga xam ne ñoo nekk foofee ñëwoon fekke ndaje mi soxna maam say Mbàkke jël kàddu gi di xam ne ne lépp lu mën ngir taxawu jigéen ñi dina ko def gën mu leen bëgg gën ko gaan li mu dolli na doon def financement DER bi ak jàppale jigéen ñi doole leen ndax jigéen Tuubaa sonn nañ trop ndax ñi liñ jàmbat lépp xam ne añ ci ay jafe-jafe yoo xam ne mënuñu ko wax ndax ñoom liggéey leen gëm ak jaamu yàlla te nit nag bëggee liggéey tam lu mu liggéeyee ah, day son day son ci njabootam sonn ci këram yéene Sénégal. yi la xeetu génn nag soxna si li mu koy amal bëri lool ci dëkk bu sell bi di Touba. xemam teefam nag di falaat ki nga xam ne moo di président Macky Sall ci jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dëgmal.